échangé nañu waxtaan nañu ñu yónnee ma charte bi may fàttali charte bi coalition bi amul tour on a échangé mané ko ñun coalition gëm sa bopp ñu ngi lay sante ci loxo bi nga ñu tàllal coalition gëm sa bopp dinañu ànd la coalition de l'opposition parce que nag gor ca wax ji te man Bougane sama kàddu démb mooy suma kàddu tey bu di opposition bi jàkkaarloo ak Macky je ko def parce que moi suma gëm gëm Je suis fayda ngir lu opposition le jour du lancement de la coalition de l'opposition ñaar fukki nit personnes je crois sinon 21 personnalités, nous personnalités signé mais demain wax les Sénégalais parce que je prends le peuple à témoin amul kenn ci kilifa yi toogoon ci table, bobu ci président. bi ku xam naka la coalition bi parce que yónnee ne la ko amul kenn ku ñu ci jox logo bi nga gis parce que yónnee ne la ko amu ci kenn nit koo xam ne jox nañu la couleur yi jëm ci coalition bi parce que kenn yu néew la ko donc ci ñaar fukki nit wala ñaar fukk ak benn ya fa nekkoon jàpp naa ne ñaar dong ñoo jël décision boobu te loolu ba mu amee ba ma duggsee ci salle bi gis ko yéen la presse gis naa ngeen bind ne Bougane Gueye génn na salle

li ma gis mooy ne jël ngeen tour, mais également jël ngeen ay Il y a un petit logo ça veut dire que yéen a ngeen soxlawu leen je man suis pas lay ànd ak ay nit Khalifa Sall devant Malik Gap Khalifa Sall devant Barthélémy Diaz Khalifa Sall devant Kalidou Niass

kon maa ngi lay wax ci kanamu Barthélemy mi ak kanamu Malick Gakou ak ñi ma andalon. maa ngi delluwaat ci salle bi mais boudé parole bu ngeen mako joxé duma wax boudé signé bu may signé je vais signer sous réserve alors grande a été ma surprise aujourd'hui en réunion quand Khalifa Sall me rétorque Bougane signé ak réserve amul da ngay yaa ngi ci biir wa illaa signé ma jàpp ne xëy na sëtam la doon waxal parce que signature su réserve bu amatul xaw ma lan moo am ci réew may xamal rek askan ne leen lenn dong moo ma yitteel man Bougane Gueye bu ma xëyee ci lay dox bu ma yeewoo moom lay yeewoo ba ba may tëdd lépp loo xam ne mun naa daaneel nguuru Macky Sall jële fi benn Bokk Yaakaar ci loolu laa nekk waaye nag du ma nangu kenn di ma dëggaat du ma nangu kenn di ma foowe parce que mën na ma tuuti mën na nek xalé mais je ne nangu pas ma durant la rencontre de ce matin mom Khalifa Sall parce que mom suis wax parce que bari na fa ñoo xam ne yàlla ma yalla bal ay yóbbaale lañu Khalifa Sall m'a intimé l'ordre Bougan, il faut

wax leen li nga ma wax alors li ñu ma wax lenn la couleur yi dafa bari waaye parti yëpp booy xool verte moom moom mooy seen mooy seen couleur ma ne ko verte rek amu fa vert la weex la ak rouge mu ne ma du rouge rose la ma ne ko du rose magenta la mhm. pour parler en langage parce que lu c'est quand même mon domaine Mais comme un mage magenta parce que composante boobu moom la ñu jël beaucoup beaucoup tiiree et rouge nga et je sais que c'est fait à dessein Mon Khalifa Sall mu ne continuer de discuter ci l'eau. Quand Bougan, jàppal mësuloo signe, ma les discussions qu'on a na mais on se rend compte que c'était des choses figées parce que nit ñi wala préparé nañu pour lool man comme duma politicien professionnel comme ñom man wajuma parce que japp ay gor ak ay nit ñoo ay lañu ils sont unanimes comme nous def nañu communiqué ne bugaan na tirer conséquence bi soit des génn soit des dindi wala mu retirer signature am waay waay oui, am yàlla yàlla ñàkk à partir de ce moment gëm la grande coalition gëm sa bopp bokkatul ci coalition bu opposition boobu nous nag ñu ngi tàllal suñu loxo ñëpp yor nañu suñuy wax bu ñu ca desee ñun it ñu continuons ak suñuy mbagg parce que nous gëm nañu ne bu ñu yeggee ci 23 janvier 2022 sénégalais yi dana nu yéene ak xalaat bi indi collectivité locale la élection yi gëm sa dana ci taxawal la grande coalition gëm sa bopp dana ci taxaw ci ne ci politique politicienne parce que nag démocratie du politique politicienne bi bukki bi ñuur bi samba man defe woon naa kenn dong moo tax ma koy ci Sénégal mais lima gis man affaire yu jinne la yefu dëmm la gis ah, c'est la réalité musu parce que man bëgguma ay nit ñuy lekkante xam nga fu may gis ni je suis je suis nit la ko xamné nit ku entier la man bëgguma nit ñuy lekkante et lima gis ay nit ñuy lekkante la te li ci kanam raw ni ba suñu génn ci coalition opposition boobu alhamdulilah Amna lu parce que ci structuration bi ñu coalition bob, ñu tuddee yewi Askan chef de parti yépp présidence présidence coalition Yewi, présidence tournante là, déglu ñu ne présidence tournante la waaye ñi sooke mbir mi maanaam les initiateurs ñoom donc ñooy nekk ay président ñeneen ñi maanaam altopele heureusement que ku mel ni Déthié Fall am na fulla ak fayda tëgg ci taabal ji pour wan leen ne du ñëpp ñoo nangu ñu leen di yóbbaale beneen point bi nga xam ne suñu génn réglé na ko parce que après présidence tournante boobu réglé nañu ko ba ñëpp mën cee dugg kon suñu génn réglé na problème foofu leneen li nga xam ne réglé nañu ko mooy comité d'arbitrage dañ ne bu amee problème dafa am comité d'arbitrage boo xam ne moom moo nekk au-dessus de la conférence des leaders comité d'arbitrage boobu ñuy sookee mbir yi maanaam les initiateurs ñoom ñoo koy composé de encore maanaam ñeneen ñi duñ ci dara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

ma gën ci ndaw ñu àndandoo jël seen confiance teg ko sama loxo kon lu ma def dara lu leen di gàcceel incha allahu rabbi jàpp nañu ne daal élection yi ñu jëm incha allah danañu dem ñun ci bañeeru la grande coalition gëm sa bopp teewul nag tàllal nañu suñu loxo ñëpp képp koo xam ne japp nga ne liggéey pour Sénégal mo la ñor xex li fi politiciens yu APR yi ak yu benno yi di def ci Sénégal ñëwal talal nañ la suñu loxo ya xam mouvement ya xam association de quartier ya xam ASC nga képp ku jóg bëgg soppi li nekk ci goxam ku jóg bëgg bokk ci élection yi jàpp leen la grande coalition gëm sa bopp talal na leen loxo pour ñu andando liggéeyandoo changer yi fi nek